mën a wax ci mooy réunion bu am solo la ñu def tey ci ndigalu ministre de l'eau et de l'assainissement mu sëñ Mbaye Thiam ci ndigalu chef de l'État le président Macky Sall ndax bi mu ñëwee Touba wax na ne war nañoo càmbar lu jëm ci ndoxu Touba ak euh, assainissement Touba ba ci inondation yi ba ak courant bi loolu nag ministre bi ci la sukkandiku ba jox ma ndigal ne naa convoqué ñu wax ci màggalu daaw naka lañ ko dundee ci wàll yooyu mooy ndox muy jëm ci inondation mu jëm ci assainissement ak lan lañu nar ci màggalu 2020 bii loolu nag yemu ca moom ca ministère ba mu ci euh, njiitalu euh, directeur général OFOR monsieur seen Ndaw mii taxaw def nañ un plan d'action programme d'urgence bi nga xam ne ren nee nañu màggalu ren gii lii lañ ca nar wax nañ ko fi exposé ko ñu am yaakaar ne programme boobu lu ëmb ëmb sax ne ci gàttal ay ñaari forage ak la muy àndal fu ñuy def ay ndox xoolaat réseau bi defaat extension bi renforcer ko ak mayage bi lëkkalee réseau bi am na yaakaar ne loolu suñ ko defee màggalu ren gi day dina saafara dina tane bu baax a baax a baax en attendant bien sur ñu daal di xoolaat nag réseau bi parce que ndox mi ñuy joxe Touba euh, du mën a doy ni sëkk de war na waaye bu génnoon ba dem ca nit ña te dara yàqu ca am na yaakaar ne kon problème mu Touba du tar tar bii kon lu bari day des ci suuf lu bari day naxasaay waaye terewul dañ jafaraat beneen ñaari ay forage ba ci juróomi forage sax yoo xam ne xëñ na yeneen ñett yoo xam ne war naa mën a yokki dolleeku ci ñaar yooyu ñu naal fekk màggal yi ñëw loolu nag ñu ngi ci lu jëm ci wàllu assainissement xam ngeen ne ren euh, euh, màggal gi day tombe nawet daaw naam ba nawet bi siit la màggal gi ñëw ñu tiitoon lool waaye defal ñu yàlla defal ñu sutura ren nag day nekk ci digg nawet bi loolu nag indi ñaxare waaye euh, du ñu xaar ba mu jege ji ci soog a jog moo tax ñu boole ko ci waxtaan bi tam ONAS wax la li nar fépp fu mu war a def ay ouvrage dina fa def ay ouvrage li ci des nag mairie bi muy direction des générations ku ci nekk dina indi ci wàll loolu la ñuy boole daje muy ay plan d'urgence yoo xam ne euh, ONAS am na ca wàll direction inondation am na ca wàll OFOR ci wàllu ndox am na ca wàll ba ci sapeur pompier am na ca wàll ba ci sax AGEROUTE bi nga xam ne tali yi ci wàllam la am na ca wàll loolu muy nekk ay plan d'urgence complémentaire yoo xam ne day yokk ci plan d'urgence yi nga xam ne ñoom dañ jot ndigal pour ñëw taxawal plan d'urgence ak koppar ya nga xam ne moom la lal ñoom rek ñu seen bàyyee ak loolu du sotti ndax màggal li muy laaj ci nit li muy laaj ci frais li muy laaj ci service lépp loo ñu war a taxawee pour nit ñi mën a nekk ci jàmm bëri na ba nga xam ne dañu dañuy ñëw wàlleeku ci dolleeku ci may profité ci di lancer appel ñi nit ñi aussi ku ci mën dara jàpp ci xam nga ne daaw ci wàllu ndox mi euh, waa waqf euh, ku mel ni soxla Woulimata Diop daal di jot jiite autorité autorité du waqf bi mu déggee rek ci télé bi. ma jàmbat problème mu ndox Touba la ma woo ndax moom administrateur civil la suñu collègue la ne ma man dinaa louer douze citernes euh, jox ko waa Touba ndax li ma dégg dafa daw sama yaram te pourtant organise bi muy jiite ci au niveau national waaye douze citernes yooyu indi nañ ko ba ñu jox ko population yi mu renforcer lii OFOR doon def yonk yu mel noonu moo tax ma ne dara ma cee xeeb bu ne. Ah, cadre bu ne responsable bu ne am na wàll bu mu ci mën a jouer pour ñëw indi en complément li gouvernement bi def bien sûr euh, wàllam ci màggalu ba xam ne ñëpp a ko bokk réew mi yëpp a ko bokk àddina yëpp a ko bokk.